tey tey dañoo ñëwoon fii ci euh, xew boo xam ne dañ ko dañ ko dañoo invité ñu bari euh, invité nag ay ministre invité société civile invité secteur privé gis ngeen ne ëpp na deux cent personnes yoo xam ne ñu ngi fi tey yëpp pour mën waxtaan ci euh, ressource naturelle maanaam li ñu yàlla may yàlla may nañu ay or ay phosphate pétrole tey ak gaz wax nañu fexe ba nga xam ni euh, ñi nga xam ne euh, dëkk nañ Sénégal te dëkk ci zone yi nga xam ne dafa am or wala am yeneen te am itam pétrole walla gaz mën see gis seen bopp ni ma ko waxee loolu nag ñu bare wone nañ ne ah, des na loolu moo tax réunion bi am ndax dafay tax ministre yi wax liñ ci xalaat euh, seen techniciens yi su ci kanamee ñëw itam wax liñ ci xalaat te itam nag euh, duñu rek wax liñ ci xalaat mais dañuy wax ci lan la ñuy liggéey pour yëf yi jëm kanam euh, société civile itam ñu ngi ci ñu ngi fi di waxtaan di wax itam li ñuy def di wax ne itam am na lu leen xaw a jaaxal toujours waxu Euh, xaalis bi nga xam ne dañ koy jëlee ci mine yi naka lañuy ñuy fexe ba euh, nit ñi nga xam ne dañoo dëkk Sénégal te dëkk ci région minière yi mën a ñoom itam am seen wërsëg ci loolu euh, kooku moom wax nañ si waaye wax nañ itam yëfu environnement ndax soo amee ay mine wala nga am leneen il faut itam su mine bi avancé ba nga xam ne xëy na ay pax yooyu rek a fay ne ñu mën a xeet seet naka lañ koy defaree ba nga xam ni du yàq dara ci ci ci dëkk bi kon loolu itam waxtaan nañ si waa am na ay nit ñu si wax mais ministre yi seen bopp wax nañ ne euh, ñu ngi liggéey waaye xam nañ ne wax nañ gën a am lu ñu def ndax askan wi ci boppam euh, su fekkee ne euh, contenu local luwaa bi nga xam ne dañ ko def ngir itam xaalis bi dellu ci askan bi yooyu yëpp am na léegi nag seen application bu dëgër moo ci des te xalaat nañ ne Sénégal ci yoon boobu la dem waaye ba ba léegi euh, mën nga am or sa wet te xëy na doo am euh, xaalis bu doy pour mën a dund yow sa sa bopp kon bëgg nañ loolu yëpp dañ loolu moo tax itam ñu toog fi ñun ñëpp ñëpp toog ku nekk li nga mën a indi nga indi ko li nga gis nga wax ko ñu mën a euh, réel euh, ñu mën a fexe bi nga xam ne Sénégal day jëm kanam rek